te combat bi moom daa bëri ay nit yoo xam ne ay défaillant lan loolu mooy dëgg euh, loolu nag nekk loo xam ne tey bari na lum ñu yàqal bari na yeex gu mu yeexal combat bi parce que tey jii am na doon toll rek heure bi yàlla mi ñu tiim xam ni fii ñu toll yii ñuy wax nii duñ ko wax waaw may ñaanal nag président Ousmane Sonko yàlla defal ko jàmm fa mu nekk bu baax baax parce que it wax deug ci yalla li lepp mom la li lepp mom la kon nan ko ñaanal yalla bu baax euh yalla dimbali ko genné ko ci loxoy say sayé mais man li ci gëm ci côté bobu manam taxawayu sénégalais yi rek parce que sénégalais actuellement ni ñom rek ñoo mëna taxaw tay Ousmane Sonko yalla mëna def mu ñibbi këram ci taxawayu sénégalais parce que ñëpp xam ne dañ koy jaay doole ñëpp xam ne liñ ko teg du yoon ñëpp xam ne tey dañ ko teg ay plan pour faagaagal ko waxuma la ba nga xam ne du nekk candidat de mais dootul jiite réew mi loolu nag ñoom ci seeni stratégie lañ nekk xaj na waa Pastef tamit ñoom it comme ni gars di doxalee seeni yi di def ay pion malgré ñoom euh, yoruñu l'état yoruñu police yoruñu gendarmerie yoruñu justice ñu lenn ci réew mi lu seen militant ak seen leader ak seen i sympathisant kon ñoom nin mën a doxale rek jàpp ni nii la ñuy doxale ñoom noonu rek lañ war a mën a doxale euh, dem ba tey nag wax ji bari na trop ku nekk tamit ak sa kii mais bari na ñuy wax ñoo xam ne mi ñu tiim xam na ni défendre lu ma kenn nag défendre lu ma kenn waaw xaj na du dañoo contre basiru fay wala dara mais xaj man ci sama gis-gis comme man ni ma mettee man li ma ci metti lenn kase la du luñ def Basiiru Jomaay Fay candidat de déedéet loolu méttiwuma de li ma metti maanaam Ousmane Sonko mi nekk ci kaso bi rek man loolu rek a ma metti mais tey Pastef ak sénégalais yi tey buñ taxawoon xeex ba président Ousmane Sonko yàlla def tey mu génn ci loxoy saay-saay yi nekk ci loxoy ay médecin moo xam ci clinique yi la nekk wala mu nekk këram ñu koy suivre ñu dem ba xam ne Sonko de wér gi yaramam ak yooyu moo ko muyul actuellement nii mu jiite ñu tànn Basirou Diomaye Faye loolu du dara mais comme tey ñoom ñëpp tey ñii ngeen di gis fii ñëpp kenn ku ci nekk sa vidéo am fii mooy sunu plan A mooy sunu plan B. kon mooy sunu palaa am mooy sunu plan B boobu tey jii nii maanaam eh, waroon ngeen cee gën a mën a taxaw pour libérer pour libération président Ousmane Sonko yàlla mi ñu tiim xam na ko parce que sénégalais yépp a koy wax fee mu nekk wuru faa nekk wuru faa war mën a nekk te wuru faa toog te wuru faa yàgg te bu ngeen xoolee Sonko mu ngi bugg a def ay weer ci loxoy saay-saay yi. te loola loola moom musu koo yaakaar ci àddunaam te ñun ñii fi nekk it amul kenn ci ñun man mii benn ci man musumaa yaakaar ni Sonko 2021 ba mu ko jëlee ci loxoy gaa yi taxaw Macky Sall ni li fi amoon dootu fi amaat yaakaaroon naa ni Sonko yàlla mi ñu tiim xam na ne taxawaayu sénégalais yi ci terrain bi Pastefu sénégalais yi ci terrain bi tey war naa mën a tax Macky Sall tey bàyyi fi Sonko ba loola amee tamit. ma yaakaar ne sénégalais yi war nañoo am taxawaay boo xam ne tamit Sonko bu demee ci seeni loxo yi du fa yàgg boobu ba tey loola ñu nekk ci man loolu rek a ma ngi moo ma xaw metti mais yàlla mi ñu tiim xam na ne Ousmane Sonko ku mu ku mu ni moom laa tabbu man na ma ko toppe woon laay toppe ci ginnaaw kooka man loolu sama yëg-yëg la parce que li tax Sonko mu ngi fi te projet bi it mu ngi fi te it kin tànn it ci projet bi it la bokk te yaakaar naa xam na sarti projet bi xam na li nga xam ne tey Sonko moom la doon wax pour sénégalais yi dund loolu pour alalu Sénégal ñu def ko ci réew mi mu jariñ sénégalais yi kon candidat bu tabbu Bassirou Diomaye Faye loolu naqariw ma may ñaan sénégalais yépp képp ku am ku amoon cofeel ci président Ousmane Sonko cofeel googu demal mottali ko sa Bassirou Diomaye fay toog déglu leen toog déglu leen waaw mais nag bu ma sañoon ñu gën a am ay activité tey ba président Ousmane Sonko jafe-jafe yii mu nekk tey du ci nekk jafe-jafe yii mu nekk du ci nekk yàlla mi ñu tiim xam na ne tey buñ seetaanee tuuti rek Bassirou Diomaye Faye mi Pastef def candidat yàlla mi ñu tiim xam na ne gars yi dañuy rejeter candidat am buñ seetaanee tuuti rek candidat am dañ koy rejeter te man li ma gëm li ma gëm yàlla mu ñu tiim xam na ne bu gaa yi amul taxawaay Pastef seen candidat du jàll parce que Macky parce que candidat Pastef bu jàll moo xam Birame Souleye moo xam Abbas Fall moo xam Amadou Ba moo xam ku mu mënti doon tamit lii fi Sonko wax ni tey Pastef buñ ko joxee réew mi lii la ñuy doxal tamit ku mën a yor ku mën a ku mën a gañe élection yi ci Pastef tamit bu boobaa looloo fiy dox parce que loolu ngeen jaay sénégalais yi moo tax ma ne Pastef yéenay leader politique leader maanaam yéenay parti bu nar a ëpp ay jafe-jafe tey ci ngeen gouverneur réew mi yor ko du ay caaxaan parce que da ngeen a jële yee sénégalais yi dugal ci seen bopp loo xam ne tey ku mën a toog te li ngeen jaay sénégalais yi dugal ko ci seen bopp duxu fi dina metti ci yéen kon man loola sama xel da ciy dal man loolu doo nga tax yàlla mi ñu tiim xam na ko parce que tamit. ñun man boog man yàgg naa fee taxaw ni Ousmane Sonko bu nee mbaam mii voteel leen ko ñu voteel mbaam moomu kon tamit du dem tey ba bàyyi fi mbaam yi tànn Basirou Diomaye fay ma ne du ma voteel Basirou fay yàlla mi ñu tiim xam na ko du ay caaxaan loolu man sama gis-gis la keneen ku ngeen fi gisit mu am beneen gis-gisit jàpp leen ni lii mooy gis-gisam wala mu am naqar bu toll ni tey bii ma am parce que neexul ci xol neexul ci xol tey ku toll ni Ousmane Sonko tey partem tey di tànn candidat Sonko nekk sa kaso ba rafetoon nag partem di tànn candidat Sonko tudd hôpital di faju rafetoon na partem di tànn candidat tey Sonko nekk biir këram rafetoon na partem di tànn candidat tànn Ousmane Sonko fekk ko mu libre wax dëgg si yàlla mais comme demee na nii focus leen ci parrainage yi ak focus ci libération Ousmane Sonko gars yi bu leen fàtte Sonko ci kaso bi. gaa yi tey yii yëpp tey ñu nekk tey naan Bassirou Diomaye Faye dëgg la mook Sonko ñoo bokk projet bi malgré sunk la Sénégalais yi xam malgré Sonko la Sénégalais yi miin malgré Sonko la Sénégalais wóolu mais sama xel dal na Sonkaan ci réew mi di dund na nekk benn bokk ndey bokk bàyyi focus tey ci élection yi ñu gañe ko mais focus tamit ci libération président Ousmane Sonko man loolu lu ma yitteel la libération Ousmane Sonko luma yittel la mu jugge ci loxoy say say yi luma yittel la mu ñew ci loxoy sénégalais yi luma yittel la mu nekk ci loxo njabotam luma yittel parce que Sonko daf ñew denkon bopam Sonko dañe ginnaw rabb sama waati wal ard peuple Sénégal bi la yaakar nan la yaakaré peuple Sénégal pour kaso be ñuko ko du fa dugg kon bu ñu yaakaré ñu jëlé ko ci suñu loxo bu dugg ci bi Wurnyo baraase la bara toog di seetaan war nañoo organiser wu communiquer wu rassembler wu taxaw temm ngir sonku génn ci kaso bi man loolu rek a ma ci naq naqari ndegam nag génn ngeen fii ci sa dex toob laa ko déggee moom moo génn ni ci ci diggante birom sulay Diop ak Abbas Fall ak Guy El malik Ndiaye yéen yéen a waxtaan ak Ousmane Sonko ba d'accord jiital fay mais noonu ngeen waxtaanee tey ba d'accord tey jiital ba euh, euh, Bassirou Diomaye Faye ñu ànd ceeg yéen gii Marius Sagna ñu ngi leen di ñaan ànd leen waxtaan ñu taxaw rassembler wu ñu génne Ousmane Sonko ci kaso bi man contre ma seen candidat bi de li ma contre maanaam seen toog gi ngeen di toog ñu bëgg a seetaan Ousmane Sonko ci kaso bi te lenn it dinaa leen ko dénk na ngeen nekk benn. taxaw temb ngir parrainage yi nga xam ne nee ngeen Bassirou Diomaye Faye moo moom la mooy représenté Ousmane Sonko di numéro 111 na ngeen ci taxaw ba waa kër ñàkk jàmm may leen jàmm ñu collecteel Pastef ay parrainage ci turu Bassirou Diomaye fay ci ndigalu président Ousmane Sonko man loolu rek laa leen di wax loolu rek laa leen di wax. taxaw leen temm bu leen jaay seen ngor taxaw leen temm ñu libéré Ousmane Sonko taxaw leen temm Pastef am ay centaine de millions yi parrainage ci loolu laa leen di woo critiqueur bii nag laa ni woon dinaa ko def am naa lu ma metti loolu bu ngeen gisee nii may waxe damaa sonn damaa nekk ci coona mais tamit du tee li ma yàgg a wax sama sunu yëg-yëg ci réew mi sunu bëgg-bëgg ci réew mi dara mënuñu koo teree wax parce que ay citoyen leen ci réew mi nan taxaw temm ba Ousmane Sonko ñibbi këram nan taxaw temm ba pare naa su Pastef yi dara du ko xajamal loolu laa ñëwoon di ko wax di leen jaajëfal di lu seen taxawaay yéen ñëpp di wax ci nan focus ci libération président Ousmane Sonko parce que tey bu ñu demee tey ba mu nekk ci loxoy Macky Sall. ñun ñii ñoo ko seetaan ñun ñii ñoo fi taxawoon ni Sonko ku la sàng sànku Macky Sall bu la laalee ñu def noonu ndeyam Antoine bu la laalee ñu def noonu ndayam te Sonko ngi bëgg a yàgg ci seeni loxo nan am ab taxawaay Ousmane Sonko juge ci loxo yi saay-saay yii xeex boobu ñu leen yàggawoo démb ak ki démb ngalla ñëw leen jug ñu xeex ko ñu libéré Ousmane Sonko man loolu laa leen di wax tey moom laa leen di wax suba moom laa leen di wax ginnaaw suba asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.